senevision.com wor la teggo tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen kii nag di len way di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bëss cloche bi moy tax mu len di man di signaler bép vidéo bo xamné ne dugal nañ ko ci site bi ki Alioune Diagne la le porte-parole de d'une entreprise de la place fi ci Touba tudd Yande Oil yandé Charles et tay nak suñu borom dogal le 28 euh, novembre 2022 euh, nous def une conférence de presse effectivement pour Ben, benn commerçant qui ñuy wax euh, Modou Mbaye fii ci marché Ocass def ay accusation yu gratuites yu gratuite Nous am yéene nag tey ji tontu ko tontu gi mooy dafa euh, wax ne déjà ca tàmbali waxtaanam euh, ne dafa am problème soxna maam Xëri L'entreprise entreprise bi été teewaayu son DAF le directeur administratif euh, bi nga xamné mo moo teew ak adjoint and ak euh, section commerciale bi yëpp ak comptable yi ak ñenn ci personnel bi teew tay ji effectivement pour démentir que ni Modou Mbaye commerçant fi ci Touba ci marché Ocass amul problème ak mam Khary Mbacké entreprise la amal problème et nous allons vous expliquer fi yëpp jaar ba mu yex fi historique bi moy mom Modou Mbaye commerçant la bu daan jëflante ak Yandé Oil yàgg na faa ñëw bokkoon na ci liste ñi nga xam da daan jëflante ak ñom difa jël diw mais à un temps le personnel la direction s'est rendu compte que ne qui du ku crédible buy fay bor fay metti ci ñom ñu supprimer ko ci liste ba kon mom ki nga xam ne def forfait bi muy Ameth Lo moom ngeen dégg muy wax moom moo ko a xam yoonu Yandé parce que dafa daan ñëw di def commande mais dañ ko caa génne mënatuloon am diw à un moment mu bëgg diw dem jaar ko ci mu Le Le lo ñeu présenter présenté wu dem direction ba le dafa soxla 1000 bidons à une valeur de 23 millions 500 que je bu ngeen mako livrer livré fi bu gi ma 23 millions 500 jox mais waxul direction ba gi Modou da leen intégralement lolu parce que euh, usine bi xam nañ Modou Mbaye il n'est pas crédible su fa présenté won euh, Mamadou euh, Mohamed Lo boobu bu ne woon diw gi dama koy yóbbu ci le commerçant bima cité légui Modou Mbaye direction bi boobu la ñuy supprimer contrat boobu du am parce que xam nañ ko bu baax mais de leen a nëbb tur bi ñu def 1000 bidons ci ñaari auto auto bu ne ñu def fa 500 bidons ñu dem ba yegg ñu jël déjà ñu personnel bépp a ngi sunu collègue bo xamné sax ci problème bi lañ ko dàqe ci la ñak liggéeyam parce que c'était le convoyeur heure bu diou daan génn yow par exemple man nga dem gis la DAF, gis la section économique waxtaan ak ñom ne leen dama bëgg diou bëgg naa 1000 bidon, ñu bindal le tout ce qu'il fallait muy keuy yi ngeen gis mom mu yor ko mu nekk ni ta dina ci ñew suma déclaration ni c'est pour vous expliquer le crucis, fi nga xamné fi la problème bi jaar bi ñu yegsee ci bitig bi muy bitigu Modou Mbaye ñu waccé diw gi à 1000 bidons ñaari auto 500 bidons euh, le le convoyeur taxaw yor tous ces documents taxaw ci buntu bitig bi le euh, le l'escroc qui est en l'occurrence Mohamed Lo ñew ne ko serigne bi jox ma këyit yi ndax ñoo ngi wàññi bi ci bir manam les 23 millions 500 par confiance ou par négligence ou je ne sais quoi sunu collègue bobu jël papier yi jox ko Mouhamed loo dugg ci biir bitig bi du mbay waa ji taxaw ci bunt bi di ko xaar nag dako nañ 23 millions 500 yi ñoo ngi koy compter ci biir bi mu ko joxee papier yi Mouhamed Lo est rentre dans le magasin jël papier yi jox ko euh, euh, Modou Mbaye le gars il est là inerte taxaw ci bunt bi di xaar parce que mu ngi xaar la gars il vient il lui donne l'argent mu toog à un moment donné mu dugg ci bitig bi ne ana euh, Modou Mbaye ana waa ji ma àndaloon moo ma war a jox xaalis bi mu ne ko waaj a dem na.

Modou Mbaye crédible. mu yande pas crédible. ñu supprimer mom ay il n'est pas crédible mu dem wut keneen nitam à sa place mu dem defal ko commande ñew mu def lu ñuy wax euh, ndax on l'accuse Yandé en question l'entreprise Yandé On accusé légui nak Modou de receleur la bi affaire forfait bi amee ñu wër ko sunu for sunu collègue boobu ñu sonal ko sonal ko moom it ndeysaan parce que euh, daf ko jël rek gëm war conscience confiance mu dugg ci biir romb jaar ca ginnaaw bitig ba dem. ba mu demee dem Dakar ñu koy wër gendarmerie di ko wër police di ko wër gisuñu ko mu defaat comme li ma wax léegi ne leen euh, euh, ab fecckat du mu du mu ñuy tama mu dem Dakar il a fait ce même forfait à une entreprise de la place à Dakar ñu jàpp ko fa. moom sa Mouhamed Lo instant bi may wax ak yéen mo ngi camp pénal Biñu ko jappé ah il a dit à haute voix que ni ce forfait là li mu def à Touba ci diou entreprise Yandé bi nga xamné ne soxna maam Xarim Mbacké moo ko moom te soxna maam Xarim Mbacké signéwul ñoom ak kayit responsable yi ngeen gisoon ñu toog fii ñooñu la signal ce même euh, escroc là a dit personnellement que Modou Mbaye ñom ñaar ñoo liggéeyoo pour d'or à une valeur de 1000 bidons qui s'élève à une somme de 23 500 000. ce qui waral nak di justice l'entreprise Yandé fait confiance totalement à la justice sénégalaise ndax que ci problème bii ma expliquer que Yandé parce que moi 1000 bidons 23 500 000 depuis ça fait 8 mois. kon Modou mbay buy wax dafa réewi làmmiñ rek te bëgg a triant te ànd kook nit nit kam ko àndal nag moom déclaré na moom personnellement ndax dafa dem dakaar di fa sàcc ak diw ñu jàpp ko sa même la def Dakar ñu jàpp ko ba ko jàppee nee na moom ak Modou Mbaye ñoo likki affaire bi kon Modou Mbaye dafa bari wax di wax waaye sàcc pire la ndax sàcc mooy ndey sàcc ndey sàcc bu amutoon sàcc du am loolu ci loxo convoyeur bi la ne woon dañ ko ne téyeel ko téye ko soo ko téyee yegg ba ñu wàccee diw gi nañu wàññi sa xaalis ba pare jox la nga door koo joxe waa ji ñëw ne ko léegi ñoo ngi wàññi xaalis bi ci biir jox ma kayit yi ma jox ko waa ji génneel la xaalis bi sa waay innocent jël xaalis bi ka kayit yi jox ko mu dem jox ko Modou Mbaye jaar ci buntu bi ginnaaw ba dem. kon mën nañu wax ne Yandé moom. ne Yandé Tune yaa ngi bëgg a jàpp le directeur général ca kaw le directeur le PCA ñëw ci euh, daaf ba ñëw ci ñëpp déedéet. mais ki ñu délégué woon. moo def yatus moom moo def benn juum. parce que jamono neexatul. mais na mu nit ku ci ne. ñun ay taalibe lañ Touba lañ dëkk. ay julit lañ te ay murit dong la ñuy des. barke ci Yàlla Muhammad nit ki. Euh, dóor moo xew fii ci dëkk bi gis ngeen ni ko gaa yi di waxee dafa ñëw taxaw mu ne ko sawaay jox ma kayit yi ma dugg ci biir su ma duggee ci biir génn la xaalis bi ndax ñoo ngi weñ xaalis bi su doon man mii tànk tànk tànk mbagg mbagg ba xaalis bi tege sama loxo confiance amul Mouhamed loo yow mii tey ma posé question yi boo demoon léegi ne damaa bëgg diw je bi 1000 dañuy dem wàcce ko ma fay sama xaalis gars yi chargé la ñëw taxaw mais mais ka ñu fa tegoon sa gaz ce jour là xamuñu parce que nit ku ne nit la nit ku ne nit la da ngay jàpp par de confiance la ko waa ji def. c'est Mouhamed Lo là il a joué des

mais tu la mais non c'est-à-dire kooku il a été entendu par la gendarmerie par la police bi nga xamee ne jàpp nañ Lo à Dakar gendarmerie woolowaat na pas dit que nous ñu wan ko photo Mohamed Lo il a dit que c'est ce gars qui m'a triandé il a il a reconnu formellement. léegi ma wax la lu tax yande Japonais, ne euh, Modou Mbaye c'est un receleur Modou Mbaye da daan ñëw yande ñu xam ko. ñu dem ba dindi ko ca liste ba ndax crédible joxatuñ ko diw waaw léegi yow su fekkee ne yow samay samay bagage mënoo ca jot loo jaaree ca kee pour jot samay bagage kon yaa angle sur roche buñ man bu ma geddee boo ma la geddee yow en tant que acheteur doo ma ëpp fu la kon damaa war a gedd sa bagage ma nekk mais geddul bagage ba dafa yebal Mouhamed Lo personnellement mu dem tra mu dem trompé fee indil ko diw ko mu fat ko ci palaasam. xam na ko tey li tax muy coow xam na ko. parce que bu affaire yi tàmbalewaatee dina jàkkaarloog Mouhamed Lo wax ko ne ko Mouhamed Lo xawma la parce que Mouhamed Lo euh, euh, tojaangi wii mu def Touba la dem doon ko def Ndakaaru ñu jàpp ko mu ngi ci kaso bi instant yi comme yëg na ne mu ngi ci kaso bi te yëg na nii tudd na ko moo tax mu chargé soxna maam Xëri Mbàkke mais soxna maam Xëri Mbàkke sequl ak dara Modou Modou Mbaye. mën nga dëggal ne Yandé amoon na contrat ak Modou Mbaye depuis 2018. moo la gën a xam yande. moom contrat contrat di liggéey bu amee contrat yi te crédible moo tax ñu dagg contrat ba. loolu man du ko wax parce que man. je suis le porte-parole de yande. loolu soo ko bëggee xam da ngay dem seeti les comptables man li ma bëgg a wax daal mooy yande déclare officiellement Modou mbay de receleur xam nga yande ñaata nit ñoo fay liggéey y a plus de cent jeunes la ba on emploie plus de, plus, de, plus de 120 femmes pour laver des bidons. C'est des millions qu'on fait par mois. Nous sommes employés employé la région de Diourbel et nous wax ci Sénégal Nous nañ ci ñu fi ëpp employé ci ay jeunes yu dëkk Touba. on se permet un un bon matin un commerçant se présente jël un élément def ko sàcc mu ñëw il y ñëw jox ko diw gi ñun ñu. nous la ñu xaar ëpp ñu pas. La justice la ñu gëm yaakaar ne danañu nous ci suñuy droit. ah oui. non non en justice il y a y a y a trop de trucs qui passe yoo xam ne ça peut être mën nañ ko libérer mu toog këram fekk on attend xam na li tax pour vous dire du mbay ak sàcc bi ñoo bokk ndey ak baay le pourquoi sa waay dafa nax waa yi jël këyit yi jox Modou jaar ci buntam ginnaaw ba dem d'accord loolu Modou xëy présenté këyitam sàcc bi moom këyit yi sàcc bi moom mooy ndey sàcc effectivement téye ca buntu la bu ci biir ba dem sa yoon c'est que ça merci c'est bon senevision.com wóor la ñuy tëggoo kumpa tàggoo nag yéen kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi